asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Mamadou Mbodj nekk France fii ci Marseille bokk ci mbooloo mi àndoon ak Modou Adjara maawul ay at te ñu wan ko ginnaaw jamono yi ñu weesu. démb nag am na kenn ci mbokk taalibe yi ku defoon benn vidéo YouTube ginnaaw bu bu sëñ Mame ki nekkoon njëriñ fii ci France defe woon benn vidéo doon leeral ay mbiram bi mu ko defee nag Modou dafa yebal këram ay nervi ay maanaam ay taalibeem pour ñu dem dóor waa ji jéem koo tiital ndax mu génne vidéo yi mu doon wax tey nag ma bëggoon a ñëw doon leen leeral mbirum mbiram moom Modou Ajara Maawul Hayaat nga xam ne maa ngi ko xam 2002 bi may nekk université école polytechnique de Dakar falaa xamante woon ak ay mbokk taalibe yu fa nekkoon ne woon ay taalibeem may ànd ak ñoom ñuy abalante ay kaset sëñ Sa Mbay ba ñu wane maag Modou ma ànd ak moom ci yoonu sëñ Touba nga xam ne mu ñuy digal njàngaleem sëriñ Touba ci kaw man na maa ngi ko ginnaaw ginnaaw bu ma ko déggee moom Modou moomu si boppam nga xam ne àndoon nañ ñu bëree bëri di ko gis ci télé yi muy muuru di wane ne dafa ragal yàlla maanaam lislaam jaral na ko bakkanam ndax kat moom danaan yitteem moom moodu boo koy déglu mooy fépp foo xam ne lislaam àggoon na fa te leerul mu leeral ko fu mu àggul woon mu àgg fa ñun ci loolu rekk ci lañ àndoon ak moom ñu ngi ko woon ginnaaw nag ginnaaw ñu ko déggee surtout mu wax wax ju bon ci Sëriñ Tuubaa moom nga xam ne nee da koy liggéeyal ñu am ci ay film de yor ko mu nekk ak ñun. ñu bëggoon leen a xamal ne tey man dinaa defaat beneen vidéo bu gën a yaatu bi bu gën a leer Modou li tax taalibe yi di koy bàyyi mooy Modou day tëddee soxnaay taalibe yi moom ci mbirum seytaane la nekk. dafa ñëw sol mbubbum islaam di woote leer ak njub waaye biiram dafa fees dell ak caay-caay bu ngeen gisee nit ñi di ko bàyyi dafay tëddee soxnaay taalibe yi. loolu moo tax nit ñi di ko bàyyi te lii dañ ci am ay firnde yu wér ndax ànd bu dëgg lañu àndoon ak moom compte bancaire bi ñu ci jiwoon fii France doon participer ci liggéey yi muy def foofu ci tool yi man maa ko tijji woon maa ngi kay di bi mu ñëw France billet d'avion yi ñu doon déplacé wu biir France man ma man maa ko doon jënd ci turu ci compte bi dalaloon naa ko sama kër Nancy ñu ànd dem Besançon ci daayira bi nekk foofu ñi ñi ñi may déglu te nekk France danañ xam bu baax li may wax lii lépp pour prouver leen ne Modou ñii di ko wax ak moom nekkut ay nit ñoo xam ne duñ ay taalibe wala duñ ay jullit wala dañoo mal intentionné ay nit la ñoo xam ne dañoo bëgg lu baax nekk ay taalibe murit yu bëgg Serigne Touba dégg ko mu woote dëgg ñu ànd ak moom biñ demee ba gis ko xam ne kii kàccoor la wëyu la dafay sol mbubum lislaam waaye biiram mi ngi fees dell ak caay-caay maanaam lëndëm guñ muuree leer la dañ ko wan ginnaaw ñenn ñi jël seeni responsabilité daal di informé ñi nga xam ne war na leen a ci mbir yi Modou yi def nag mbiri caay-caay yi mi ngi leen xamal ne Modou nit la koo xam ne day fan dafa man day fen nii naturellement wax lu du dëgg mën na ñëw toog ak yow di ko wax ak yow naturellement comme comme comme na na naan moom fen daal moom naan ndox ñoo ci moom day tëddee soxnaay taalibe yi am na ay taalibeem yu ko bàyyi yoo xam ne ñu ngi dëkkoon foofu noonu dëkkoon ak moom sorewuñ dara wetu kon bay Fall ci ñu ko ci wër tamit ñu si baree bari xam nañ toj toj ak caay-caay yi nga xam ne mu ngi koy def taalibe yu bëree bëri daf leen di def la ay prêt bancaire di ko tuddee liggéeyal yàlla parce que daf leen naan yàlla daf ñoo war a jaral lépp bu ko defee nag yow boo comprendre da ngay foog ne jaral yàlla jaral la lépp mooy nga jël sa alal ji nga yoroon yëpp nga jox ko ko moom mu ne da koy def ci ci ci ci turu lislaam te yu ci bëree bëree bëri yu muy laaj du ko def ci turu lislaam ndax mbokk taalibe yi ma nekkaloon fii nga xam ne dañoo ubbi woon benn compte boo xam ne man maa géré woon compte bi amutoon sécurité amutoon carte bancaire ñëpp ñoo si mën a dugal seen xaalis man dong maa fa mënoon a dem di jël dama leen joxoon ñoom ku si nekk ak accès internet nga xam ne boo toogee sa kër di nga mën a dem dugg si compte bi xam lu fi nekk lu ñu fi jël luñ fi jëlu te xaalis bu ma ci mos a yóbbante Sénégal dama leen di jox ñoom reçu ñu tegoon ko si ay anam yu leer doon dox ci loolu. bi coow yi amee ba ma bàyyi ko dinaa leen leeral lu tax ma bàyyi ko ak ay points yu bëree bëri yu tax ma bàyyi ko ci laa jokkoo mbokk taalibe yooyu nga xam ne ñu si bëree bëri man àndoon na ñoom ñu dem ci bi ñuy ubbi jumaa manaarul udaa ñu dem spécialement pour ubbite jumaa ji booy xamal ma ne ma ginnaaw buñ ci Modou Modou daf leen doon sas ay laali daara daf leen doon sas ay madla daf leen doon sas nangam ak nangam ñoom bu ñu demee ci daara ja fekkuñ fa lal yooyu Modou Lo leen ko wax ak ay salon ak ay mbir yoo xam ne da ko doon jëndal taalibe yi biñ doon ñëw nii rek ñu bare bari su ñun daf leen laaj téléphone far yàlla natt ko ñu daje fa bis biñ koy jox téléphone yi lu mat juróomi téléphone daje na fa téléphone yooyu lu mu koy doyee lu dul kilifa yi nga xam ne ñi ngi ñëw si moom mu leen koy jox di leen xamal ne moom bëggut àddina di leen ko neexalee ñu bare baree bari ñu ngi fay dem di seede te dañoo xamul bu ñu fa ñëwee maanaam comme dañoo nekk ay kilifa bu ñu leen di gis ñoom dañuy mel ni ku validé caay-caayu Modou ma di leen xamal nañ ne Modou bu ngeen gisee di ko bàyyi ñi ñi di ko bàyyi mooy ku xamoon taalibeem bu ko bàyyi demal nga laaj leen ñenn ñi Modou daa tëddee seeni soxla am na si ay xale yu jigéen tamit yu ñëwal ñëwoon lu ci moom Modou àgg seen kaw ñenn ñi may na leen ay jëwrinam yu ko wër ñu si bare bari ñu nekk foofu nag ñenn ñi naafeq la ñenn ñi xamuñ parce que lii buñ la ko waxee day mel ni ñu ne la jant bi tiimu la wala asamaan amut ndax ca tellement incroyable que yow doo mën a arrivé pour xam Modou mii nan la mën a nekkee ci biti di wax lii ba pare ji def caay-caay ay soxna yu muy àndal ñoom ñoo ñëw xamal la ne Modou Ajara mii dana ñëw jëfandiku jëfandiku si ñoom ba pare daal di sëy ak ñoom bu pare ñëw jiite gaa julli moom pacte bi mu signé ak seytaane pour di mën a am mbooloo ak bànneexu àddinaam ci mooy yàlla la tege moo tax muy def nii rek di lay jaaxal nag mooy moom nan lay mën a nekkee ci lëndëm gi di ñëw di wax leer muy muy muy lu kéemaane mais chaque fois nga gis ku ko jege am ci firnde bàyyi ko jëwriñ Ablaay moom nga xam ne moo dëkk Kaolack te def vidéo bi ku ko jege woon la moog sëñ Ngom ñoom ñu ni ñëpp ak ñeneen ñu ko waroon am na yeneen jëwriñ yu bëree bëri danañ ñëw indi seen témoignage pour ngeen xam jëmm ji mooy kan. waa baa xam nañ ko ñu baree bari xam nañ ko mais dañoo leerul ay mbiram ñun ñu àndoon ak moom nag bañ xàmmee ñu ak moom nga xam ne ñu bëree bëri peut-être jaar nañ ci ñun ba dem ci moom wala jaar nañ ci ñun ba sopp ko ndax xam gi ñu xam ci lañ ko xamaalee doon ko sopp doon ko suivre ngeen def attention très attention ci moom saay saay la. li muy woote nekkul ci moom day def ay propagande di fay ci télé yi xaalis ay reportage pour ñu koy wane muy wax bay jooy ci yàlla waaye yooyu yëpp ay fiir la moo tax ma di leen ñaan ngeen def attention ci taalibe yu ko wër moo dina leen defloo ay prêt bancaire ñenn ñi mu jël seen suuf te yooyu bu ñu koy def yëpp dafa leen di nax di leen xam ne ñun dara waruñoo moom yàlla kese moo ñu war a moom mais yàlla kese mën na laa moom te du tee nga am sa kër am sa oto du moom yàlla kese moo ko moom mais ñaata terrain la am Sénégal ñaata oto la am mais da di nax boo dee xool nag ni muy wootee 2002 ak léegi am na am na soppeeku ndax au début du amutoon ay garde corps mais bi mu demee ci soxnaay jàmbur yi ba mu leer ko ne am na ñu koy wër pour bëgg koo duma ci la wut ay garde corps malheureusement nag gaa yooyu ñoom comprendre luñ Modou ak caay-caay gi nekk si moom euh, ñu ngi ñëw di ko garder mu di leen xabtal di leen wane ne ñoom daal ku ci dee foofu noonu sax ci moom yaa ngi mel ni ku doon xare badar day fen moodu du xalifatullaahi fil ardi du dara saay-saay bu bon la rek buy nax nit ñi ci yàlla te bu moytul ñooñu ko wër buñ découvrir ak caacaay ñooñu seen bopp ñoo koy njëkk a duma parce que non seulement li muy woote du dëgg <coughs> parce que non seulement li muy woote du dëgg mu ne ñu ngi fay ñoo sonal nit ñi yenn coono yoo xam ne di leen dikk ay mbir ci yàlla yoo xam ne xamu ci dara dara leeru ko ci. lii nag dafa nekkoon benn résumé bu gàtt rek bu ma leen indiloon dinaa ñëwaat ak yéen ci benn vidéo bu gudd boo xam ne dama ci indi ay kayit kayiti compte bancaire yeeg billet d'avion yeeg passeport moo dëkk wala carte d'identité sénégalais bu ko defee ngeen xam ne kii di wax ku ko xam la te ragalu lu muy def parce que léeg-léeg danaan ay nit ñoo làqatu ci gannaaw. di def ay vidéo di sànni YouTube xam nga ma bu baax man xam naa la am na ay photo yu ñu àndee. maa ngi ñëw ak yéen ci fan yu néew rek dafa leen waxtaan bu leer ba ngeen xam waa ji mooy kan jërë ngeen jëf.